بسم الله الرحمن الرحيم أنت الكريم أنا الخديم دار نديم فيك سنائي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بوكي جلدي بوكي طالبي ginnaaw bu ñu sante yàlla julli ci Moustapha sallallahu alayhi wa sallam feddaliwaat sunu yaakaar Cheikhuna Ahmadul Khadim ñaanal sëriñ Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha yàlla na ko fi yàlla gën a yàggal lool gën a dolli ak wéram am nañ mbégte jotaat ndigal ci sëriñ Cheikh Mbacke moom sëriñ Salihu yàlla na fi yàgg lool te ànd ko wér sëriñ Cheikh yëkkati ay kaddu jëmee ko ci sant mbooleem njabootuk sëriñ Touba gépp nag tàmbalee ko ci Cheikh Mouhamadul Mountakha mi nga xam ne mooy jëwriñ yoon wi di sant mboolem Cheikh si nga xam ne ñoo aju ci kër sëriñ Touba a Rasuul ñoom ñëpp di leen tàllalaat loxo nag ci liggéey bi nga xamante ne bii dana ko ànd ak ñoom ñi di ko ci jàppale incha allahu rabbi liggéey boobu nag moom la ñuy waajalaat sëriñ bi nee na mu jiital ci woote bi ñii nga xam ne ay bokkam lañ te ànd ak ñoom ci liggéey bi ngir yàlla ak jëmi yonent bi ak jëmi sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul mu ciy jiital sëriñ Abo Mouhamed Mbacke xalifatu Cheikh Mahamadul Mamoun Mbacke Daaru Salaam sëriñ Cheikh Anta Mbacke xalifa sëriñ Modou Roqe Daaru Salaam sëriñ Moustapha Mbacke xalifa sëriñ Abdoul Akram sëriñ Salihu Mbacke ibnu sëriñ Ibra Ndar sëriñ Salihu Mbacke moom sëriñ Mourou Boussa Dieng sëriñ Salihu Mbacke moom Alhaji Mouhamadou Lamine Baara sëriñ Khadim Mbacke moom sëriñ Abdoul Fatah Falilou sëriñ Abdou Mbacke moom sëriñ Ibra Mbacke moom Cheikh Mamadou Fadal sëriñ Mourtada Mbacke moom sëriñ Abdoul Fatah moom Cheikh Mamadou Fadal sëriñ Salihu Mbacke moom Cheikh Mouhamadou Mourtada moom Cheikh Mamadou Fadal sëriñ Salihu Mbacke moom sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke Chouaibou sëriñ Abo Mbacke moom sëriñ Cheikh Fati Fall sëriñ Modou Mbacke Maawul Hayat sëriñ Xabbaan Mbacke moom sëriñ Abdou Ummi sëriñ Talla Mbacke moom sëriñ Mamor Pakala sëriñ Abdoulahat Mbacke Mbar sëriñ Salihu Mbacke moom sëriñ Basiru moom sëñ Modou Xabbaan sëriñ Soaybu Fall moom sëñ Modou Aminta Fall sëriñ Bada Talla Yacine Fall sëriñ Moustapha Fall Fallu Fatikan sëriñ Modou Fall moom sëriñ Seexuna Jannatu sëriñ Xaadim Fall moom sëriñ Abdoul Aziz sëriñ Abdoul Aziz Fall moom sëriñ Modou Abdoulahi Serigne Cheikh Diop Baye Fall Jannatu Serigne Sam Diop ak mboolem njabootu Serigne Massamba Diop Sam gépp Serigne Abdoulahi kamara Dakar soxna Ndey Jaw Njaañ Serigne Ousseynou Kane Dakaru Serigne Cheikh Sam Diop Serigne Souaibou Sarr Jasaaka moom Baye Serigne Sarr Serigne Khadim Gaye Lawsat Serigne Mahmoudan Diop moom Serigne Naar Diop Serigne Khadim Touré imam Serigne Salihu Dieng moom Serigne Abdoul Karim Serigne Mor Jaxate Daaru Jaxate Serigne Khadim Sugu Serigne moor Cissé moom sëñ Ibrahima Cissé Thiawén sëriñ Mbacke Ka moom sëriñ Salihu moom sëñ Moussa Ka sëriñ Abdou Samad Diouf moom sëñ Thierno Diouf sëriñ Thierno Diouf Mbour sëriñ Moustapha Diouf ak sëriñ Abdoulahat Ndiaye Xewar sëriñ Fallou Ndiaye Xewar sëriñ Mbacke Ndiaye Xewar. ba tey sëriñ baa ngi ko yëgal sëriñ Jille Touré Mourid Sadikh nekk ca Dakar ak mboolem ñu moo àndal ñëpp. sëriñ Salihu Ka Yaañ Ka alhaji maam Balla Bey Ndamatu sëriñ Abdou Gora mbaay Pire ak waa Sañaxoor gépp sëriñ Salihu Dia moom sëriñ Mor Dia Njar serign Mor Moussa Diagne Mbagam daayira saxaw gi sëriñ Dan Dieye ak sëriñ Saliou Ka Teyeri Touba sëriñ Baara Ndiaye ak sëriñ Mbaye Sarr daayira Teyeri Dakar sëriñ Moustapha Sène daayira Masongi Touba sëriñ Mor ak sëriñ Atou Cissé daayira tu njaareem sëriñ Mbay Jaxate ak sëriñ Seex Jenn daayira soppi sëriñ Saliou yëpp nag xidmatul xadim safoori Mbàkke Touba mécanicien Mbàkke Touba ak li ko wër Serigne Cheikh Lo président de groupement transporteur yi benn Touba daayira soxna Fati Jaxate soxna Khady Ndiaye Serigne Sambay président regroupement safoor yi benn Touba. Serigne bi nee ba tey mi ngi ciy soññ ñi nga xamante ne bi ñoo daan jàpp ci liggéey bi ci wàllu oto yi di ci jiital nag El mbay Mbaye Touré di ñaan sun borom doole xéwalam Serigne Abdoulahad Ndiaye Ndakaaru Serigne Cheikh Gueye Mbana Serigne Xabaan en campement Serigne Abdoulahad Ka maire Touba di ko yëgal Serigne Thierno John Ngoya alhaaji Saliou Sène Bambey Séréer ba tey nag ñu sëriñ bi wax ne liggéey bii kat ni mu demee ñu ngi koy fàttali. daayira Miftaahu Nasri sëriñ Seexu Ndaay Seexu Naa Njaay jiite ko ca Pétersen sëriñ bi nee ne mi ngi koy yëgal ñëpp nag di xam ne liggéey bii nag mi ngi ciy sàkku suñu borom defal ak njëggal ak yërmande sëriñ Modou Mbacké daaru moxti yàlla na ko sun borom doole ay xéewal ak yërmande di ci fàttali ko waale ci ay ñaan nag bëgg ñu ñaanal ko ko doomam di jëwriñam di jëwriñu liggéey bi di alhaaji Cheikh Amar TSE sëriñ bi nee na mi ngi koy ñaanal sun borom doole ko ak wér nañ xam ne liggéey bi lépp ci loxoom la ko tegaat mu jiitu ko nam ko daan jiitee sëriñ baa ngi ciy soññ ñëpp nag di ñaan képp koo xamante ne bii dem nga xel koom ajjuma fukki fan ak juróom ci weeru gàmmu yemoo ak le 22 octobre incha allahu rabbi sëriñ bi nee na mi ngi ñaan képp ku dem xel koom moo xam nga dagg fa aw gub wala nga dajale fa aw gub wala nga jox fa nit lu mu naan yàlla na ko sun borom defal sa njëgaluk àdduna ak goog alaxira wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu lakin unaadi kulal hibaadi ilahi maadi bila jalayi ya ahla barri يا أهل باري هجولي بري باري سخاي